merci beaucoup président merci <coughs> mbokk yi asalaamaaleykum kàddu yi du gudd kàddu ku woote la d'abord wax ni ñi ma ko ñi ma jiitu waxee le 14 woote nañu rassemblement bu yeewi askan wi lañ ca bëgg nag du méga ndax dañoo tuddoon méga daat ciy def benn Kër Massar mu mel ni dafa xaw a yëngal yuuru gaay yi léegi ñuy daw ne ñoom it dañuy def ay méga xam naa liñ ci def ci ay million wala ay milliards war naa bëri ndax koo xam ne mënoo woo it ba mu jëw ci coobareem lu dul faw rek nga génne xaalis bu bari pour xale yi doon ut paasu Mbàkke ñëw wuyu la ñu ne nag léegi bàyyi nañ leen ak méga ñun giga meeting la ñu bëgg a def moo tax ñu ciy woo sénégalais yépp nag à commencer suñuy partisans ñun ñi ñépp kenn ku ne ci sa parti politique suñuy sympathisants waaye bépp sénégalais boo xam ne situation réew mi jaaxal na la dama gëm ni mooy daanaka sénégalais yépp ñu daje fa ci li ñu tuddee giga meeting ndax aw askan. mooy fajal boppam mbeju kanamam aw askan mooy jël destin en mais aw askan mooy wan boppam waaye wan àdduna bi ni am na dignité am na maturité waaye am na détermination ba li nga xam ne constitution jox na ko ko muy souveraineté mu mun koo exprimer te loolu dafa am nuñ ko ci wonee mooy ñaare nit ñi wootewuñu dañuy dem defi coup d'état pour daaneel ki fi ne wootewuñu guerre civile waaye constitution ci boppam moo ne ku am lu la neexul am nga sañ-sañu wone ko te bokk na ci niñ koy wonee mooy dajaloo fenn nu daje bi gën a yaatoo rek muy gën a doon mandarga ci ñi jor ñëw mi waaye ci àdduna yépp ndax àdduna dañuy suivre keroog meetingu Kër Massar bi àdduna yépp a ko suivre télévision àdduna yépp a ko wone ñépp xam ni sénégalais yi nag la ci ëpp bokk gëm nañ ni lii échantillon rek la ci waaye d'accordu ñu ak nii Macky Sall yore réew mi moo tax bu ñuy woote dafa am solo léeg nga woote mu am sénégalais yoo xam ne ànd nañoo ak yow sax mais dañ koy neenal ndax jàpp nañ ni garaawut toog fi ñu toog naan seen attaaya wala nekk ci yeneen loolu dooleel Macky la waaye wàññi doole opposition bi la yàgg naa wax ni bis bu ñu dajalee 500000 personnes ñu daje fii lancer Macky message bu leer nañ gëm naa ni lu mu doon def lu mu sañoon benn dina ko xoolaat ci genn wàll moo tax ñu ne daje boobu dafa am solo giga meeting la ñu bëgg. boo xam ne képp koo xam ne la ñuy wax ñun bokk na ak li nga gëm nanga fexe ba yeewi ko ci bés boobu ñu daje ñaareel bi mooy ëllëg sa le 15 am na ay marche yoo xam ne dinañ ko organiser ci l'ensemble du territoire national muy Sénégal wërgël këpp déposé nañu ci 14 euh, ci 46 départements yi daanaka. marché la yoo xam ne yu ñu fas yéene organiser la pour dénoncer li nga xam ne moo am ci réew mi bu ci njëkk mooy ñu jàpp te tegul ci yoon te ku jàpp ni ak acteur politique kese la wala Pastef kese la ndax nga sa bopp ndax saa su ne ñu jàpp fi ab journaliste wala ab ku bokk ci société civile bi wala keneen a keneen ñaareel bi waral marche yooyu mooy justice bi nga xam ne ñu ngi koy instrumentaliser di ko fooye ngir rek di ko jublu ci régler ay compte ñi nga xam ne bokkuñu kàddu ak Macky loolu dàkk fi ñaar yi nag ma wax ala kulli xaal dañ koy amal meeting bi dañ ko amal incha allah rawatina nag marché yi parce que Macky Sall moomul réew mi de moom saa su buggee jóg dem du laaj autorisation lu ko neex mu dem fu ko neex mu dem su dajalee ay nitam wax politique bëgg a gëmloo nit ñi turi tournée économique moo ko tax a jóg tournée économique lan moo ci dajale ay nit Sédhiou naan leen li ma ñàkk Sédhiou métti na maag liggéeyu leen loolu ban ban rapport la am ak tournée économique ay nitam chaque jour ñu def meeting fii ci biir Ndakaaru ak ci biir réew mi ba pare ne opposition nag naa leen tënk ba kenn du def meeting loolu jeex na fi bu soobee yàlla le quinze bëgg na ko bañ na ko dans les 46 départements du Sénégal dina am manifestation sans avec ou sans autorisation ma wax ko mu leer te man mii maa joxe ndigal en tout cas ku bokk ci man dégg ma man maa joxe ndigal bu ñu leen joxe autorisation marché leen bu ñu leen ko joxul marché leen. bu ñu amee ku ñu jël si nañ ma jël si parce que ci suñu euh, suñu constitution la ñu bind ni nit ñi am nañu droit rassembler wu manifester wu march kenn demandé wul autorisation dangay ngay da ngay yëglu interdiction bi exception la te dem dañ ko war a motiver mais chaque jour ñu ne trouble à l'ordre public mais yi ñu manifester yi ñu autorisé dafa mus am trouble à l'ordre public fan ngeen mus a gis manifestation bu ñu autorisé ñu jege si ñu ne nit ñi xeex nañu wala toj nañu oto wala lii saa yu amee rek interdiction moo ko andi kon ñu autorisé Macky Sall lay waxal Macky Sall ci boppam laay waxal ndax préfet yi ay suq lañu sous préfet yi ay suq lañu ñuy sant ñu def Macky Sall lay waxal autorisé nga autorisé woo bu soobee yàlla marche dina am dans les 46 départements du Sénégal. Macky Sall dootuñu ko may dara jeex na 12 mois yi di ñëw lu ko mbir mi jaral jaral nañu ko parce que nag yenn yi ñàkk fulla la kon ñuy woo sénégalais yépp ci rassemblement 14 bi yeewi askan wi waaye di leen woo ñoom ñépp ñu génn massivement ci marche 14 yi rawatina nag marche 15 bi rawatina nag ndaw ñi toujours ma dellu ci waxtaan ak yéen ndax yéen lañu ñu bëgg seen avenir Macky Sall lan la fi def ci réew mi nañ ma ko wax nee nañu Macky Sall dafa am bilan ban bilan la am réew mi am na ay usines réew mi mbay mi dox na napp gi dox na càmm gi dox na réew bu amul loolu réew moomu existé wul ñuy nax nit ñi ak ay tali ak ay stade ñu ne Macky Sall liggéey na. tali yoo xam ne stade yoo xam ne train yoo xam ne benn bu ne bàyyi na fi ci bor li président Malick Gakou doon wax say sëtë gi stade dinañ ko fay ba pare ñu surfacturé ko mooy lu naroon jar fukk ñu fayloo ko Sénégal ñeent fukk xaalis bi ñu koy damm di ko dugal seeni poos nit ñi bëgg ñu gëmloo ni Macky Sall am na bilan ñaata ndaw ñoo am liggéey soo bëggee xam ndax bilan am na am déet mooy ñaata nit ñoo am xëy ndax ko am xëy mooy yóbbu dara këram waaye ñu nax la di la tabaxal boo gisee mi ngi rey boppam pour pare BRT bi balaa 4 avril pour ne sénégalais gis ngeen li ma liggéey li may laaj sénégalais mooy ñaata sénégalais ñoo am liggéey ci 12 ans yi baykat yi est-ce que tey mbay mi dox na ba ñoom ñu yëg ko man de maa ngi woon tourné ci monde rural bi waaye li ma fa fekk mooy xiif ak sonn ak ñàkk jiw ñàkk engrais boo bayee ba pare doo gis koo jaay wala njëg bi ñu lay fay baaxul nappkat yi bis bu ne ñu recevoir leen problème yooyu moo am mareyeurs yi transporteurs yi artisans yi amul benn benn benn secteur économique booy jël Sénégal ñu ne dox na bilan nag fañ koy nattee mooy réew mi ndax koom-koom bi redressé nañ réew bu la gën a baax koom-koom moo la gën a baax réew bu la gën a néew koom-koom moo la gën a suux Sénégal amul koom-koom loolu mooy bilan Macky Sall su doon nag lajj na li muy lajj ba pare waaye am dignité am lu muy seet ak lu muy jomm ne ah comme wóolu nañ ma jox ma réew joxaat ma réew mi naa xool nu may génnee ti mu gën a rafetee te du ma fitnaal réew mi noonu la gor di doxee waaye bu ko mënul nag dinañ ko fi jëlee ci nii wala ci nële ci nii wala ci ñële 11 mois moo fi desee Macky Sall incha allah dina jóge ci bopp réew mi na boppam nag di wër. ñu koy dajaleel ay nit xaalis bu dul jeex ñu def ko ci muy fëgg dënn ci élection la ñu jóge yàggul 47 pour cent la dem mbuxum na sàcc nañu élection bi bañ nañu waaye 47 pour cent la am ci élection bi ñu génn 46 pour cent bu ñu demaatee élection du am 30 pour cent waaye da ko dul fekkee sax da dul bokk parce que mënul nekk candidat constitution bi leer na bu ko xamee wasalaam bu ko xamul nag lu ko mbir mi jaral jaral nañu ko na nax boppam rek ndax àdduna bi yëpp ñu xool li xew senegal te ñoo ngi waxtaan ak àdduna bi yëpp nag ndax dañ ko bàyyi woon mu féete bitim réew lu ne mu dem wax fa ñii ay terroriste lañu ñii dañoo contre Occident ñii dañoo bëgg lii waaye fen du be jaaw te sàcc bu dul raw jarul yàqi nelaw na xam ni loolu yëpp jeex na. lii muy def yëpp ndax boppam la xam naa ni tournée tàggatoo lay def tournée tàggatoo lay def waaye février 2024 Macky Sall ne sera plus président de la République du Sénégal bu soobee yàlla moo tax ma woowaat jeunesse boobu li tax ngeen jóg ak espoir bi ngeen am ci projet yi ñu leen projet bii ñu teg seen kanam moom la Macky Sall ne dina ko dakkal ndax dinañ ñàkk fulla ba Macky Sall dakkal ko ak ku mu munti àndal nag dinañu fekk fii li wane ni daf koo bugga dakkal dàkkal te yéen la Macky di xeex yéen jeunesse bi dara defalu ko jeunesse bi dara rawatina nag jigéen ñi muy mbubboo temps yi naan day def ay déclaration yu ñàkk fay yoo xam ne kenn xam lu mu doon lan la fi defal Sénégal yi jigéen ñi tey ñoo gën a sonn ci senegal boo duggee ci dëkk yi sa yaram day daw jigéen ñi conditions yi ñuy dund ñoom ñu toog fii di fëgg ay milliards seeni poos di séddoo kenn xamul ñaata milliards la ñu séddoo moo tax ñu bëgg a gëmloo nit ñi ni mbir mi jaral na leen seen bakkan parce que ragal nañu luy xew gannaaw bu ñu ñàkkee nguur gi waaye dañ naan ku aju day bañ ku teen bu ñu tegoon seen tànk fi ñu ko war a teg yor réew mi ni ñu ko waree régal tey du ñu ragal waaye nekk ci tooxi doone rek ba pare ne kenn du ko wax te duma dem sama yoon dinañu dem de bu soobee yàlla waaye liy firndeel loolu mooy li président Déthié wax léegi révision yi révision ordinaire la waroon doon ñu waroon ko def ci juróom benn weer Macky Sall mooy moom mooy Sénégal quoi lu ko neex lay def nee na moom révision bi ci benn weer la koy def parce que yéen jeunes yi la bañ ngeen bindu parce que xam na ni ndaw ñi ànduñoo ak moom te ndaw ñi ñooy 65 pour cent de la population sénégalaise mu ne kon primo inscrit yi nga xam ne ñi joog am 18 ans ñëpp naa fexe ba bu ñu bindu moo tax mu ne da koy def benn weer ci lu waroon den juróom benn weer kon jeunes yi yéen a war a porter bi ñu ànd ak yéen ñu xeex ko mu jeex nu mu métti métti métti nañ ko xeex benn yoon mu jeex ndax bu ñu lajjee nag ba Macky Sall def li mu bëgg réew mi dañ toogaat ay ati ati at jooy suñuy gët rek la ñuy yor am na ko jox léegi exemple réew yooyu ñuy wax les pays de l'Est ñoo gën a métti fi fuuf ndax xamuñu woon démocratie ba léegi sax daana xamuñu ko waaye georgien yi bi seen président jëlee loi bëgg a tënk presse bi ñoom ñëpp dañoo génn sotti nañ leen ndox bu tàng dóor nañ leen grenade lacrymogène waaye ñaari fan la ñu def gouvernement bi retiré projet de loi bi Macky li muy jaay doole yëpp amul dispositif bu mën a tenir bu mën a tenir ñetti fanu manifestation fii Sénégal ñetti fan bu ko sénégalais génnee manifester Macky Sall attanu ko kon nag bukki bu yabee waxambaane ci doxin nga la Macky moomul réew mi groupuscule bu ndaw bi mu àndal moomuñu réew mi ndax tekkeenu tekkeetuñu fi lu bari de yàlla xam na ko moo tax ñu ne nun de li ci suñu wàll dinañ ko def waaye dañ koy ànd ak yéen askan wi loolu moo fi des mu des nag ñaari message yu ma bëgg a adressé benn bi ma koy wax magistrat yi gis naa démb seen président naan day def interview di wax ay wax man de man Ousmane Sonko dinaa continuer citer nommément magistra bu fi def lu dul yoon mu tudd ko ndax du ngeen yàlla du ngeen yonent nit ngeen comme ñëpp dëkk ak nit ñi askan wi moo leen di fay salaire da ngeen nekk seen bulle foog ni yéen ay nit exceptionnel ngeen quoi yen magistrat yi mais nit ngeen bis bu ne ngeen lor nit ñi ci lu dul dëgg loi ne lii la ngeen bàyyi ko def lii parce que dañ leen jox commande ba pare ne kenn du ci wax pourquoi du magistrat yépp nag mais magistrat bu fi deful naka su dul noonu ñu wax ko man maa tudd Serigne Bassirou Gueye man maa tudd xam Diallo man maa tudd procureur bi dem temps yi lu mu lu tudd sax may wax mu naan il faut di courage xaw ma lan ñàkk courage weesuwul raqatu gannaaw une fonction di teg nit loo ko warul teg bu xat weesuwul loolu Amady Diouf man maa ko wax les actes qu'ils ont posés sont des actes lâches qui n'ont rien à voir avec l'exercice l'exercice de la profession de magistrat te dinañ leen yàgg indexé nag ku fi def lu dul noonu ñu indexé la ku ko bëggul na nga tegu ci yoon def yoon ndax kenn ëppalewul Sénégal fii kenn ëppalewu fi sa morom da ngeen di def loo xam ne seeni mbokk magistrat yépp nee nañu lii du yoon avocat yëpp nee nañ lii du yoon professeur d'université yëpp nee nañ lii du yoon ngeen topp bëgg bëgg Macky Sall bëgg a lor nit ñi ba pare ne kenn du leen indexé Sénégal dafa di réewu jàmm rek de mais su doon yeneen réew yi nit ñi réglé woon nañ ko neneen bu yàgg saa su fi réew mi tàkkee ay magistrat ko taal ci décision bu ñu jël te waruñu ko woon jël même rapport Union européenne bi si élection yi wax na ko li xew 2022 ba ay bakkan rot su magistrat yi defoon seen liggéey bakkan du ci rot ñoom ñooy ñan xanaa duñu nit ñoo xam ne yéen a jàngandoo foondoo di lekkandoo defandoo lépp ñu bëgg a teg seen bopp lu kenn xamul parce que nee nañu ñoom daal am nañu benn prestige boo xam ne lu leen neex ñu def nit ñi duñu ko nangu nag te bu ngeen bokkee ci xeex ñu ànd xeex ak yéen bu ngeen jëlee parti di politique ñu face à face ak xeex ak yéen parce que moom leen réew mi foofu la Sénégal toll ku bëgg jàmm dangay jàmmal ña ca des jàmm mënul nekk à sens unique bis mu ne ñu jàpp nit bu deful dara benn waaye koy jàpp dóor ko mandat dépôt dem toog këram moom ak njabootam di naan ataayam di lekk ceebu jënam loolu fan lañ ko teg loolu ban rapport la ak magistrature il faut que ça saret ñun ragaluñu leen de te xam ngeen ni ragaluñu leen faalewuñu leen su ñu respecter institution bi la ñu respecter mais l'institution ne vaut que par rapport aux règles qui la régissent et il faut appliquer de la manière la plus conforme à l'esprit et à la lettre bu ngeen ko deful ñu wax ko te ci réew mi ngeen dëkk ni ñun ñëpp di féliciter di encourager tous les magistrats qui résistent encore ndax bëri na dernier mouvement bi tous les magistrats qui disent non ñoom lañ jël yóbbu sànni fu sore sore sore dem jël ñoo xam ne ñëpp xam nañ seen jaar-jaar ci magistrature yi ñii ñu yóbbu leen cour d'appel pour que décision bu amee en première instance ñoom ñu mun ko confirmer en appel wala ñu infirmer ko en appel ñii ñu yóbbu leen en première instance pour ñu recomposition recomposer une chambre pour mun a am li ñu bëgg parce que ñi fa newoon duñ ko nangu mais loo xam ne dafa ne fàng Sénégal yëpp nga koy gis magistrat nag ngeen jéggal ma ci kàddu waaye magistra bu fi dof doflu Macky Sall day dem de jeex na onze mois moo ko fi dese su dee cinq cent mille li ñuy yokk ci seen salaire moo tax ngeen di jël ay décisions yoo xam ne tegul fen dama jàpp ni jaru ko te ngeen moytu di lor nit ñi ndax ñi ngeen di lor dañoo am njaboot ni yéen te seen njaboot moo ëpp seen njaboot ñoom ndax dañoo am njaboot ci deret waaye am ay million voire des milliers voire des millions de personnes yu ànd ak ñoom yow nga tëju sa bureau taal sa clim ne kii dinaa ko tere nekk candidat kii naa jël décision bi ba pare foog ni nañ toog di la seetaan du fi am de ma teel leen ko wax du fi am ñi may mujjee nag mooy les force de l'ordre Macky Sall jarul yenn yi yéen ñëpp sénégalais ngeen koo ci gis mu sol tenue taxaw fii ngoon da ngay dem gis ko li def nga dugal ko doo xam sax ni waaj la. nga nga yóbbaale ko mu ne la man de policier la wala gendarme la réew mi ñoo ko bokk d'accord da ngeen def seen liggéey d'accord vous appliquez des ordres mais que personne ne vous transforme en assassin bu n'êtes pas des assassins maintien de l'ordre lañ leen sant waaye du tiire ci ay nit di leen rey bu leen ko nangu dara jaru ko ci àdduna surtout ñi leen koy defloo ñoom ñëpp ay milliardaires lañu yéen seen salaire quatre-vingt-dix mille francs ñu dagg leen ci vingt mille francs ne pour la popote nga ñibbeeg soixante-dix mille francs ñu teg la ci àll bi naan la dóoral sa frère dóoral sa sœur dóoral sa baay bu leen ko nangu Macky Sall jaru ko ñi mu ànd ak jaruñu ko kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant asalaamaaleykum